mbokk yi salaamaaleykum di leen jaajëfal ci ànd ak topp gi ci seen site Sénégo numéro 1 de l' actualité sur mobile dellu siwaat ak yéen ci jotaay waxtaan yi mu leen di amal jamono ju jot ci tolluwaay réew mi rawatina Afrique ak àddina ba tax na tey ci entretien spécial gi nga xamante ne nii moom lañ leen indil tey nu ngi fas yéenee sëkk waxtaan wi ak kenn ci doomi réew mi ràññeeku ci ay komba ràññeeku ci ak ak yëleef askan wi nga xamante ni waxtu wu ne dañ koy ci front bi mu di xeex ngir askan wi mën a am tawféex mën a am naataange moom mu Mamadou Diop Decroix leen koy wax casquette yi nag bëri na waaye dañu koy bàyyee kàddu gi rek mu nuyoog ñun waaye dikk ak ñun ci tënk rek ngir ñi koy teewlu xëy na umpale ay jaar-jaaram xamuñu mooy kan mu dikk ak ñun ci loolu monsieur Diop ñu ngi lay dalal ci entretien Sénégal bi. jërëjëf yaa Moussa maa ngi lay sant. di la gërëm ci li ngeen ma dalal yow ak sa équipe bi la gunge fii tey maa ngi nuyu itam ah, ñiy seetaan ah, Sénégo eh, waaw député la ci assemblée nationale bu dee présentation eh, nekkoon naa ministre d'État ministre d'État ministre au président auprès du président de la République jamono président Wade bon xëy na mun naa ko yemale foofu léegi su dee am na ay laaj <laughs> ci yow ma bëgg laaj mhm. ci samay jaar-jaar nga laaj ma ko ma tontu ci voilà dañuy dugg rek ci man maay secrétaire généralu ànd jëf parti africain mhm. pour la démocratie et le socialisme am na coalition booboo ko de ban coalition la non euh, non non non euh, front de résistance nationale ok loolu yëpp ci carte d'identité gan gi ni dalal kon dañuy dugg rek ci waxtaan wi ak actualité africaine principalement ci sous-région bi ak euh, la Guinée Conakry nu gis putsch gi fa am ci euh, fan yi nu génn ak colonel euh, Mamadi dumb ya Alpha Condé wàcce nañ ko jënt militaire bi fi mu ne ni moo nekk au pouvoir mbetteel am du mbetteel tey monsieur Diop ban jàngat nga am ci xeexoo googu am ci Guinée Conakry bon li xew Guinée Euh, man dama euh, Alpha Condé dañu di yàgg ànd depuis euh, fanweeri at ma xam ko bu baax mu xam ma bu baax kon image yi ma gis ci réseaux sociaux yi soldaar yi jàpp ko naqari na trop ci xol vraiment ñaaw na trop loolu touché na ma touché na ma parce que voilà loolu mooy humainement maanaam ci doomu aadama ak moroomam mais nag wax naa itam ci sama page Facebook ne ku xam Guinée di xalaat di ko suivre ni muy doxe Euh, faw dangay ngay sóoraale lu mel nii mësuma ñàkk di sóoraale que ne lu mel nii mën na arrivé président Alpha Condé bettu la euh, du ma ko waxe noonu mais naka jekk dama koy doon sóoraale lu ni mel parce que xam nga man hmm, du man rek man mii ak ñeneen xam nga moom su ñëwee Sénégal day wax ne dafa am ay xarit ci Sénégal te bu leen di tudd daf ma ci boole kon euh, am na lu dox suñu diggante mais bu doon ne dëgg dëgg dëgg ci wàllu dégg euh, doon na xëy na déglu ñoo ñu may wax di ay xaritam ñu daan ànd ak moom naka jekk tey ñoo xam ne euh, dañ koy wax dëgg su jotee parce que. du ay lu ñu séq ak moom luy war a tax euh, bu dëgg jotee walla wax ko daal bul def lii bul def lii defal lii defal lii am na ci ñu bare te jàpp naa ne ñooñu itam wax nañu ko lañ ko waroon a wax kon problème bi mooy problème mu di dégg ak di déglu wala di déglu ak di dégg loolu dafa mel ni ak ah, pouvoir daal c'est un problème très particulier Euh, man jàpp naa ne su doon déglu xëy na ñoo xam ne jàmm rek lañ ko yéene woon kon du yegg si fii. ci seen discussion en tant hmm? que ni nga ko leeralee ni relation yi ngeen sekk ndax mel na ni moom euh, ay xarit woon ngeen jegewoon woon jegewante woon ngeen trop daal euh, ndax bàyyiloo nga ko woon xel li ni mel parce que coow amoon na ci bi muy bëgg a def ñetteelu mandat bi. ñu bëri mettroon nañ ko ci en garde waaye mel na ni euh, euh, xawoon na leen bañ a déglu kon nañ ko waxee lii foofu laay waxe quoi foofu lay waxe man euh, dama def benn article xam nga man parce que man li may wax ci biir mhm. am koy wax ci biti man naa ko bañ a waxee la même chose li ngay wax ci biti man nga ko bañ a waxee li ngay wax ci biir waaye wax bi moom benn la ma def benn article euh, novembre deux mille vingt léegi mu mat at ma def tudde ko l'urgence de s'asseoir pour discuter parce que euh, dama jàpp ne lu xew Guinée rek intéressé na Sénégal waruñu ne dafa xew Guinée non dañuy jàpp ne dafa xew Sénégal lu xew Mali dañuy jàpp dañu war a jàpp ne dafa xew Sénégal Toumani Touré da daan wax ne euh, Mali mooy Sénégal oriental Sénégal mooy Mali occidental ma jële ci moom loolu sama article bi ma wax ne Guinée mooy Sénégal euh, euh, bi ci suuf nu mu tuddati méridional Guinée Sénégal mooy Guinée septentrional tubaab yi bañ ñu yilifee dañ ñoo boole woon juróom-ñetti réew dañ leen a boole tudd leen Afrique occidentale française ñu nekk benn buum mu dénk ko gouverneur général de l'AOF muy fanaan fii ci pale bii Macky Sall dëkk tey gouverneuru Sénégal dëkk nekk Ndar waaye tubaab yi bañ demee ba desul lu dul indépendance ñu tasaare noo soog noo jox indépendance loolu 1960 la woon ba tey mën na gunoo àndaat ci suñu biir pour mën a dem pourtant réew yooyu soo leen boolee seen superficie à peu près mook Inde ñooy yem Inde un milliard trois cent millions wala un milliard quatre cent millions d'habitants la ñun boo nu boolee bu matee cent millions du ko ëpp te ñoo Inde ñooy yem dënd bi te li nekk fii ci alal newul fële Inde amul asaka ja kon xam waroon nga xam nga ne waroon na noo mën a dem lu tax demuñu ok dañ naan tubaab yi tubaab yi tubaab mais il faut en finir ça même loolu yëfu yëfu day dañu dem ba nekk ay ay ay ay gone maanaam bu ngelaw li fooree sax ñu ne ah tubaab yi la tubaab yi tubaab yi mais ñun ananu ñun ñoo war a jël suñuy responsabilité vraiment régler les problèmes foo là-dessus nag jàpp naa ne man ak ñi mel ni man suñu jóge ci loolu ñu ngi ci xeex guddi ak bëccëg mais jeunesse bi aussi war nañ ñëw dimbali ñoomit ñu takku jóg taxaw pour que euh, ñu mën a régler problème boobu. kon balaa ñoo tëj chapitre boobu ci wàllu gine tey ana ban jàngat lañ ci mën a. def ci xew-xew googu am foofu. alors donc euh, man dama mas a wax Alpha Condé toujours del wax ak Cellou Dalein Diallo te ngay fexe ba ñëpp di xam ne yaa ngi wax ak Cellou mais parce que soo demee Guinée Cellou la woon ak Alpha premier tour. ak deuxième tour enfin deuxième tour Guinée en euh, élection en 2010 euh, dama ko ko wax trois mois après euh, deuxième tour bi bi législative bu defe naa 2013 la woon législative bi mhm. ba ma fa demee aussi dama ko ne su lépp jeexee ba ngeen installé seen assemblée waxal ak sellu te fexeel ba ñëpp xam ne yaa ngi wax ak Seydou mais mel na ni loolu sottiwul li taxoon li ma ci gënoon a encouragé pour ma di ko ko wax mooy bi ma demee investiture RPG bi ñuy investir Alpha Condé candidat en 2010 maa nga fa woon ak Boukounta Diallo mii tey ak euh, Karim Arati ñun ñett ñoo daan ànd tout le temps ak euh, mën naa ne sax Baba Tandian sax nga fa woon bon ci palais du peuple Cellou Dalein ñëw na fekke ko ñoom ñaar ñu joxante ay loxo jox téyante seen loxo circuler ci biir salle bi bi ma jëlee parole dama rafet rafetlu loolu ma fàttali leen ne leen président Abdoulaye ak président du Diouf ay adversaire la ñu mais bi président Wade euh, gagné président Abdou Diouf euh, da ko jox avion présidentiel bi président Abdou Diouf dem représenté ko benn sommet bu amoon au Caire en Égypte booba Wade ngi soog a toog mu ne Abdou Diouf demal représenté ko Abdoulaye ba mu jógee Touba ci sëriñam sëriñ Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokk leeram dafa dem Louga seeti ajaa Kumba Dem di yaaye Abdou Diouf ne ko sa doom dem na waaye sa doom ñëw na itam noonu la ko ko waxe loolu dama ko ràppale ca palais du peuple Conakry Cellou Dalein Diallo mi ngi toog Alpha Condé mi ngi toog jàpp naa ne bu doon ne doxale nañu noonu mbir yi kon du ñu yegg si fii malheureusement demewul noonu. fi ñuy jeexalee ki nga tudd sànq muy maître Boucounta Diallo mu mel ni démb génn na ci média yi def njàngat gu am solo waaye mel na ni ba tey am na seen syndrome boo xam ne moom mooy yóbbee chef d'État yi seen mujj gi di mujj ñaa muy coowal troisième mandat bi ndax yaa ngi partagé position am dafa jot Afrique ñuy yemale yëf yi ci ñaari mandat doyal am ñeneen mën a jël relève bi mbir yi di continuer man duma ma xalaate noonu xalaatewuma noonu loolu dafay dafay dafay dafay wane ne kon mbir mi mbirum lekk la boo lekkee ñaari mandat bàyyil keneen ñëw lekk noo ko gisee kon non c'est trop sérieux nos problèmes en Afrique c'est trop sérieux ça suñu problème dafa weesu mbirum troisième mandat constitution yii nu yor mooy lan yenn constitution la est-ce que peuple yi xam nañu constitution yi nu yor xamuñu ci tous constitution yi français lañu ñu ko bindee en ensuite c'est des constitutions d'inspiration comme ni ma koy wax gaullienne ñi fi ne ndekk ay monarque républicain ñoo ne Afrique ay ñooy ay buur lañu ak di ay bummi soo ñëwee Sénégal demal ci comme ñu ngi jëm élection locale demal ci gouvernance locale maire yi ay chef de canton lañu ci ñi ko bëgg doon am na ñoo xam ne ñu ngi doxale neneen mais li ci ëpp ay chef de canton jaay suuf si kenn du wax man fa ma dëkk maire ba fa ne day ànd naag nit dem ci toolub jàmbur buddi lañu fa jëmbat lañu fa ji lépp ah bon ànd ak ay ay promis alors yooyu lañ war a régler ne fii ay troisième après on waa considérer que euh, voilà bu ñu respecter troisième mandat rek problème bi réglé na quoi mais Abdoul Aziz respecté wul troisième mandat respecté wul affaire bi euh, kon ak euh, euh, Mauritanie mhm. deux la def ne non duma def troisième mandat est-ce que loolu génn na ci Euh, Abdoul Aziz ak problème mu Mauritanie. taxu ko cee génnee de. non franchement le problème de, de l'Afrique c'est le problème de l'exploitation et de l'oppression dégg nga wax ji c'est le problème de am ay institutions yu dëppoo ak Afrique ay réalité mag ni muy doxe tekkiwul ne du doon ay institutions démocratiques si mais ay démocratie dafa am ay modèle y a des demal demal Europe ñaata réew fa am ay buur carrément buur Angleterre ab buur a fa ne mhm. zone Scandinavie bi ay buur a boobu ay buur a fa ne mhm. yooyu yëpp bëgg nu koo xalaataat tu bon euh, euh, moi c'est ça mon loolooy sama sama sa gis-gis sama sama sama gis-gis alors mhm. bu ko defee après ñu yem nag ci waaw troisième mandat quatrième mandat millième mandat nangam nangam et cetera c'est des problème c'est des problèmes. Mm-hmm. mais soo jàppee ne loolooy problème mu Afrique c'est pas vrai problème mu Afrique weesu na affaire ay deuxième mandat ki troisième mandat. ñu tëj foofu recommandation yi nga am. ah non dafa xóot dafa xóot dafa xóot man euh, article boobu ma lay wax. Mm-hmm. bi ma bindoon ci Guinée. le mm-hmm. temps de s'asseoir et discuter. dama ci def cité article bu ma bindoon bi Macky Sall di def constitution euh, réforme de la constitution ma ne réforme constitutionnelle ou révolution républicaine on n'a pas de république en Afrique nañu waxante dëgg dañ ko ko tudde mais nekk ko pour le cas du Sénégal y compris surtout Sénégal le reprocher Macky Sall non c'est pas la personne de Macky Sall mais il est le président tey moo fi nekk c'est la le présidentialisme muy Macky Sall muy euh, Moustapha Ndiaye muy lay jaxate c'est le présidentialisme qu'il faut balayer en Afrique que nit ñi toog bañ a doon buur doon bummi ñu defar ay constitution yoo xam ne ñi li ñuy tuddee assemblée nationale moo xam bu boobaa naka lañ ko koy naka lañ koy tuddee du doon institution boo xam ne nit dafay taxaw ne lu président bi bëgg rekk moo ma fi bàyyi bu wote jotee nañ ma ko wax rek ma yëkkati sama loxo sa loolu dafa war a jeex ci Afrique tu comprends euh, loolu assemblée constituante laa wax ne nañu ko convoqué assemblée constituante mooy li ñuy tuddee force vive de la nation boo ñëwee Sénégal dafa am fii ay réalité ay communauté dégg nga wax ji dafa am nord am sud am centre am est am ouest lu ne daf foo foo ci dem dafa am lu fay dox ñooñu nañu ñëw toog diisu boo jëlee euh, nu mu tuddati diine ji diine lislaam a ngi fi jàngu baa ngi fi am maa islaam bee gën a yaatu mais jàngu baa ngi fi am na ñoo xam ne ay xërëm lañuy ñuy jaamu nañu ñëw toog boo jëlee diine islaam bi murit yaa ngi fi tijaan yaa ngi fi xaadir yaa ngi fi nañu ñëw toog ñu waxtaane Sénégal lan la ñuy war a tëral ba nga xam ne kenn ku ne dina ci gis boppam bu ñu fa jógee ñu liggéey dégg nga wax ji su ma léeg-léeg ñu ne waaw dañoo war a def eh, jox président bi mu yor juróom-ñaari at waaye bu paree mu jeex comme ça yooyu yëpp ay ay taf yëngal la ay ay camlangal la ay jag-jagal la dégg nga wax ji bu baax donc fi ñu war a waxe waxe wu ñu fa vraiment moi c'est ça mon problème loolu loolay sama problème daal mbokk ñu après ne waaw <laughs> euh, bon euh, loo xam ci troisième mandat nangam nangam Macky Sall nee na la mënuma koo def maa ko bind pour mu wóor ne duma ko def mënuma koo def nuance am na ci de way non loolu laa lay wax ñu bëgg nag di lawti lawtee loolu ci esprit wu nit ñi ba nit ñi dem jàpp ne kon mën naa ne. moom it waxatul dara. non non xam nga attention <laughs> man fiñ gars yi di waxe laa waxewut kon ñu ngi lay dégg parce que am na ñu ñuy fay xaalis bu bare bare bare bare seen liggéey mooy di togg xelu nit ñi di ko togg xam nga su doon ne dañu jaax senegal yëpp bon troisième mandat Macky Sall mënu koo def jeex na féete na boor waaye dugal nañu ci grand place yeeg naanukaayu ataay guddeeg bëccëg ñi ngi koy waxtaane mais loolu day dem a dem a dem ba daanaka daanaka des ci bopp yi ñu jàpp ne loolu kon war naa mën a ne te warta mën a ne comprendre nga. kon baax na 2022 lañ jëm ak local yi. 2024 a ngi sunu kanam ak présidentielle bi waaye fi mu ne nii ñu gis ay coalition di formé wu ci sa yenn naataango politique yi fi nekk bi ci mujj ñu mën cee tudd yeewi askan wi ñu ci gën a fës di Ousmane Sonko bu Pastef ak xalifa Sall ak Taxaw Sénégal ak PUR eh, dégguñu la ca ban jàngat nga am ci loolu ak lu xew sa position par rapport ak mbir mi. non non vraiment ay ay jàmbur yu daje def seen yëf. man aw ma lu ma ci. xanaa consulté wu ñu la wala. aw ma aw ma lu ma non vraiment. d' abord consulté wu mais garaawut. vraiment gis naa ne am na ñu leen xawa a yooyu mais un dérangé wu ma deux leen ci. ça m'est strictement égal parce que droit la ñu am ci dajaloo waxtaan ci seen biir suñ juboo ñu def li leen doy man maa ngi ci li ma doy. jàpp naa ne nag opposition bi dafa war a daje mais daje nag dafa am lu muy àndal ñoon ñoonu noonu naka jekk noonu lañ ko daan doxale depuis 1982 mi ngi bëggee a yàgg booba Abdoulaye Wade moo doon le principal parti de l'opposition mësuñoo def dara te ñëpp teewuñu Abdoulaye Wade daan wax bu gaa yi ñëwee gis nga teg cin li c'est pare nañ ci yow daal boo amee ay xalaat maanaam ndugg mi mën ngaa bu gaa yi ñëwee nga ne ah demoon naa marché di gaa yi lii de laa teg waaye nag ndugg maa ngi nii nag ku ne wax waaye lu ci ni ñu koy doxale kooku moom ñëpp a koy waxandoo kii ne nañ dindi lii dugal lii keneen nañ dugal lee dindi lee ba ñu juboo noonu lañ ko daan doxale parti dañu am différence ci wàllu poids électoral et puis poids électoral xam nga day toxu <laughs> xam nga day toxu Sénégal ñëpp xam nañu ne poids électoral day toxu euh, donc dama ne égale dignité même si les gens de poids électoral différents maanaam diisaay ci wàllu élection man naa wuute waaye nag euh, wegante ak yëgante ak respectante kooku moom mënta ñàkk fi may jeexale mooy man gëw ma ne gëw ma ne nit mën naa toog fee ne Yewwi askan wi askan wi mooy Yewwi bopp ci nag organiser wu xam li ñu bëgg am direction politique bu valable bu ko jiite mu sotti mu sotti waaye musaa Ndiaye taxaw Ablaye Ndiaye Mamadou Diop et cetera ñu ne dañuy Yewwi askan dama mësut gis hmm. ci àddina bi hmm. fu loolu amee mësuma koo gis nga yore parti muy ànd jëf du ñu dégg lool sa présence wala ci sama jàngat bu fekkee juum naa ci daanaka dañ léegi gis tout le temps ci côté coalition bi nu boolu opposition bi fexe doon benn ngir jàmmaarloo ñu fi nekk ba mu mel ni sax da ngay fàtte yow sa parti dëgg la fan la président Mamadou Diop Decroix toll ak partiam ak naka ngay waajee li nga xamante ni mu ngi sunu kanam. dëgg la loolu loolu dëgg la loolu dëgg la même waa parti bi dañu ma ko daan reproché te it lu ma dund la parce que. njiite dafa xaw a metti dafa dafa dafa tiis daal maanaam bu fekkee ne dañu ne bon opposition bi euh, yaakaar nañ ne daal Mamadou Diop mën na cee dox fii dugg wax et cetera pour loolu dafa dafa dafa dafa tiis suñ parti naka jekk noonu da koy doxe xam nga ne ma defal la benn euh, scoop. ñu ngi déglu scoop bi. 1998 euh, dañu def élection législative bi ñu paree ma xool résultat bi Abdou Diouf am cinquante virgule enfin parti socialiste cinquante virgule quatre cinquante virgule dix sept opposition bi réunie am quarante neuf virgule quatre vingt trois xam nga kon kooku. équilibre dugg na dugg na rapidement ma waxtaan ak euh, sama grand frère Landing Savané moo doon secrétaire général bi ñu xoolee ñu ne aaway ah ñu de l'an 2000 suñu ko toggee mën na sotti Landing était candidat parti bi moo ko investir investiroon mais dañu desine ne non avec ça Landing ne doit plus être candidat ah bon ñu àndandoo def délégation dem point E seeti Ablaye Wade booba Ablaye Wade 93 amoon na 30 pour cent et quelque ci présidentielle bi mais législative 2000 1998 euh, boobu le PDS était en dessous de 20 je crois que 19 et quelque la amoon ba pare entre temps am na ñu bare ñu newoon ci PDS ñu dem. ñu bari du ma c'est pas may tudd ay tur donc c'était difficile mais quand boo xoolee résultat yi da ngay gis ne et puis man dama xool la la baisse tendancielle ni ñu koy waxee ci résultat parti socialiste ci élection bi de 83 à 98 chaque fois nu muy wàccee donc ñu dem seeti président Wade nekko daal ñun jàpp nañ ne dañu war a def benn coalition pour l'an 2000 ñu man fi jëlee parti socialiste Idrissa Seck fekk na ko fa bi bi ko président wa la Wade laajee nu mu ci nu mu ci xalaat dane waaw tey de mel na ni waa muhaajiriin ak ansaar daje nañ noonu noonu la ko noonu la ko modéliser noonu la ko wane euh, bañ fa jógee ñun Ablaye nañu nangu naa bañ fa jógee booba bépp parti bu nekkoon ci Sénégal ca booba jamono seeti nañu la parti d'opposition seeti nañu la ñun wax ak yow ci loolu ñoo boobu ñoo ngi ko tuddewoon ñun la grande alliance nationale pour l'alternance ginnaaw bi la doon euh, nu mu tuddati euh, coalition alternance 2000 CA 2000 bi Moustapha Niass taxawelee code 2000 moom itam Euh, ñu àndandoo def front pour la régularité et la transparence des élections FRTE man mii maa ko jiite woon coordonné ko kon ñun am nañu lu ñu xam ci opposition ak ci naka la ñu war a def pour mën a éviter ndëgg sërëx yi et cetera fii mu ne nii inscription yi léegi mu jeex taluñu direction parti taluñu sax inscription yi nit ñaa ngi kaas certificat de résidence nit ñaa ngi kaas Euh, lu nekk ci affaire yi mais déggatoo sax opposition bi leader yi di ci wax parce que taluñu ñu ñu ngi rey réunion Ndakaaru jàppal bàyyil et alors que le plus important c'est de contrôler ma li ëpp solo mooy ñu saytu. Euh, euh, processus bi mbirum mbirum wote bi. Mhm. jaar jaar wote. processus ba lépp tegu ci yoon. loolu loolu la tubaab di wax processus. Mhm. mais mais defuñu ko. Ehm, léegi nag nga laaj ma ñun nu taxawee <laughs> waaw dëgg-dëgg nag mm, waxtaan wax dëgg ca la ehm, nii nu nekkee di ko toppatoo sunu parti mun naa wax ne ay ate aci ata ngi nii defuñu ko noo ngi toppatoo parti bi guddi ak bëccëg suba ngoon ndax gàllankooroo seen militant te noo ngi ci am itam ay la yéwén ay ehm, mbégte yu ama ama am solo parce que d'abord militants yi eh, vraiment léegi ah, ci seen si koy waxee ci encore seen xol sedd na daal ci ni parti bi taxawee euh, gëm nañ si gën nañoo naka jekk dañoo gëm seen bopp mais gën nañoo gëm seen bopp élection locale yi nee nanu commune Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp nañu defar seeni liste ah te gaa yaa ngi ci euh, parti bi day joxe caution kon kuy présenté wu doo du soxla ngay ngay sonn bu ma la déggee yow fas yéenoo présenté wu da ngay gunge njaboot gi attends ma après ma ñëw ci loolu da ngay dégg da ngeen voilà mm-hmm. bu ñu defee noonu euh, ñëpp waajal seen candidature ñu teg seen candidat nee naa leen foo xam ne parti bi yaakaar na ne amul ku war a mën a parce que y a maintenant quatre-vingt-dix-sept pour cent des des militants du parti c'est des jeunes c'est des jeunes bon en général euh, il y a de grands cadres hein, parmi eux ay docteur ay ingénieur ay et cetera mais ay ils encore jeunes nee naa leen foo xam ne amul ci yéen ku war a mën a gàddu affaire bi seet leen ci commune bi koo xam ne doomi commune bi la nit ñi fonk nañ ko respecté nañ ko parce que ñun duñu ngemb ay truand ak i escroc ok donc te mu bëgg te mu bëgg nekk maire mais loolu su amee au lieu nga bàyyi benn waaye jóge fële làqar ci quinze millions ñëw war a nekk maire mais kooku kay nga jàppale ko pour mu nekk maire donc boo gars yi ñu ngi waxtaan ci yooyu te ñu ngi ci am ay résultats aussi léegi nga laaj ma ndax man dinaa présenter du ma présenter ça ne m'intéresse pas d'être maire c'est pas obligatoire d'être maire nee naa leen jub waxtaan leen ci seen biir parce que cette affaire c'est pas une histoire de direction yuy daje Dakar di décider c'est une histoire de localité nee naa leen waxtaan leen ci seen biir ku ngeen jàpp ne moom la man dinaa ko jàppale mu gañe mairie bi voilà maintenant am na ci sama parti koo xam ne moom nee na bëgg na nekk maire ba ci commune bi nu bokk dëkk am na ci sama parti ku ne moom nee na bëgg na nekk maire ñoom ñaa ngay waxtaan ci seen biir ak yeneen parti opposition ya fa ne dégg wax ji dégg naa ko ñu ñëw ci tomb bu bu mujj gi ci wàllum inondation bi ndax nawet bi bëri na ay gàllankoor yoo xam ne xaw na ko indi ci askan wi ba tax na daaw amoon na som gu am solo guñ ci defoon ba mu jege daanaka sept cent et quelques milliards waaye mel na ni defuñu ci lépp ba njiitum réew mi activé na IG ngir mu saytu loolu ban jàngat nga ci am ak noo gisee mbirum inondation bu dee am nga ci xalaat ngir pexe am ci. alors foofu it mooy li may wax au lieu ñuy wax ci dàttu garab gi mooy 700 milliards yeeg def nañ ko ci gars yi luubal nañ ko saax saaxe nañ wax ci reenu garab gi loolu loolu la pour suñu problème loolu la. sànq nee naa la constitution yeeg karabe yi troisième mandat troisième mandat troisième xamuñu ne li nu li nu li nu takk suñ loxo yi la weesu na troisième mandat mais fa la ñu yem alors ñu di ñu ñu di ñu mel ni xale douze ans mbënd bi mais il faut nee naa leen défaut de vision et mauvaise gestion moom moo ci ne défaut de vision et mauvaise gestion Macky Sall su amoon vision kon dix yii mu fi def mais dina jéem a xoolaat affaire bi pour que dakaar comme ni ma leen koy waxe euh, zéro virgule trois pour cent du territoire national na am nga jël Sénégal déndu Sénégal nga xaaj ko téeméeri xaaj yu yem nga jël benn xaaj boobu benn xaaj bi xaaj ko ñetti yoon ñetti xaaj yu yem Dakar mooy benn ba maanaam zéro virgule trois pour cent du territoire national nga am ci Ndakaaru vingt pour cent au moins de la population du pays maanaam xëy na trois millions d'habitants quatre-vingt pour cent koom-koomu réew mi mi ngi Ndakaaru loolu jaadu na ci dëkk boo xam ne géej a ko wër benn bunt la am mais ku bëgg am dara mais da ngay ñëw ndakaaru parce que feneen leneen feneen amut dara kon ku bëgg a ñëw ku bëgg a am dara ndakaaru ngay ñëw ku bëgg a xëy ndakaaru ngay ñëw ku bëgg a jàng lu normal ndakaaru ngay ñëw ku bëgg a lépp daal a ngi Dakar lépp a ngi Dakar Euh, soo bëggee yor réew mu mel ni Sénégal mu am dëkk bu mel ni Dakar dangay xalaate neneen foo gis inondation rek ndox la woon Sénégal amoon jamono bopp dafa am maral ay ati at tawut gaa yi dem dëkk ci yooni ndox yi wax ah, léegi su ndox mi dellu si ndox mi moom fa mu nekkoon lay dellu bu fekkoon ne réaménager nañu territoire bi fu ci ne mu am loo xam ne mën naa téye ña fa ne ba sax xëy na am ñu mën a jóge feneen dafa di fa dem mais Kédougou la fa nekk euh, euh, euh, ci ay ci alal kenn xamul nu mu toll buñ ko defaroon na mu ko war a defare muy Tambacounda muy ka Ziguinchor muy fleuve bi Macky di dem Fuuta dama leen ne Macky bu amoon vision dëgg dix ans après avoir pris le pouvoir buy dem Fuuta bateau lay jël wala mu jël train amuñu vision soo amee vision da ngay def ci ay aménagement yuy soulager Dakar nga xam ne nit ñi dañuy am intérêt wu génn Ndakaaru décentraliser yëf yi waaw nga xam dañuy am intérêt wu génn ndakaaru de concentration bon euh, euh, euh, loolu soo ko defee xam nga autoroute bi c'est très bien mais nga def ay yoon yooni ndox mooy bateau taxi yooyu Ablaye doon wax nga defar loo xam ne gars yi bu ñu jógee port mën nañu dem ba Mbour par la mer jaar ci géej gi wala jóge Yoof gi dem ba Kayaar ci géej gi xam nga loolu su amee nga teg saxaar teg autoroute bi teg yoonu Bargny mais nit ñi dinañ mën a dem ak a dikk saxaar bi teg nañ ko de terre bi voilà mu ngoog yooyu yëpp yooyu yëpp bon terre bi kenn mënatu koo buddi di sànni xanaa kay ñaan mu teel a pare tax <laughs> ak li ci dem ci alal bon donc yooyu boo ko amee nit ñi dinañ mën a dem fu sore sore sachant que bu ñu bëggee ñëw Dakar boo tegoo ci ci ci autoroute bi wala dugg saxaar gi wala jaar ci euh, euh, géej gi mais balaa mat waxtu nga ñëw dox say soxla dellu loolu bu amoon nga mën un million de personnes yu génn Dakar wala deux millions yu génn dakaar mais nit ñi bu boobaa loyer bi dootul jar dara. cher na de. voilà bu ko defee cher na te day gën a cher bu changé wut alors nit ñi dinañ booba jóge ci yoonu ndox ya nga daldi nag yoon yooyee foofee ndox ma ne nga defar ko defar boo xam ne. di nga mën a am fii cinq millions de touristes par an di fi indi xaalis bu dul jeex du xaaj ak yeneen ak yeneen ak day gudd dama la bëgg a won ne la amuñu vision waaye itam gestion bi baaxut parce que xam nga Sénégal mais du ñoom rek du ñoom rek ñu ne ci gouvernement bi yéen ñii bu ñuy naan attaaya ñu nome nañu yaa Moussa ñu ne luñ ko jox eh, jox nañ ko je ne sais <laughs> euh, euh, société boo xam ne daal xaalis bu baree nga fa lu gars yi di wax soo affaire am baax na foofu lekkukaay la c'est parce que dans nos têtes alal réew mi da koo war a lekk soo ko lekkut lu ñuy wax bëggul dara aka dof ko opportunité man man yàgg naa lool yàgg naa koo dégg Mamadou Dia ah kooku bëggul dara voilà cest dañ lay sax ñàkkal fayda dañu lay wàññi parce que lekkoo alal réew mi ñu ne bëggoo dara xam nga loolu loolu loolu loolu loolu bu génnul ci suñu bopp yile nu muy demee soo nommé ministre mu dem rey nag këram gis nañ ko fi ci vidéo yi famille bi di jubilé di jubilé di jubilé non mais si si mais président da nga dul dégganteeg moom wala lan moo xew ndax xalaat yi tey jii nii ndax mi ngi lay déglu ndax ubbil na la ay buntam wala yaa ngi am opportunité président de la république bi fi nekk. waaw njiitum réew mi. mais non pourquoi mais mais man kii lii sama sama conception la sama vision la moom li mu gëm mi ngi koy doxal. tu crois que bu ma demee naan ko bul def li ngay def defal leneen dina ma dégg quand même président ñu ngi lay jaajëfal dañ lay bàyyi nga tëj jamono metti na dund gi cher na loyer yokk na tey yan recommandation nga am. koy tëjee. na sénégalais yi préparé wu jële fi màkki Sall ak waa këram te bañ a def Macky dégage comme nañu defee woon Wade dégage lool du programme de bañ ne Wade dégage. Hmm. Wade dégagé na est-ce que problème yi réglé na Macky dégage du programme nañu bàyyi xel ci fal nit au lieu de bàyyi xel ci folli nit bokkut et ça malheureusement c'est le problème de l'Afrique même maire yi dangay benn waaye ñu ne ma nga Canada am na xaalis daa bëgg a doon maire voilà ñu naa ah, waaw kooku de war naa mën a doon maire moom ñaata la indi ah moom day nangam nangam c'est ça dangay gis koo xam ne kii man <laughs> am na maire boo xam ne xam naa ko ba ñuy waajal 2014 ay këram la jaay waaw ku jaay këram pour def ko ci élection kooku bu gañee dina liggéeyal ña mu ña ko woteel jaaxal na ma boo ma kamee fi ñuy tëjee rek tudd nga Idrissa Seck tudd nga Abdoulaye Wade ndax président moom mu du Diop dafa nam retrouvaille famille libérale ndax dafa nam retrouvaille famille libérale bi mais man je ne suis pas un libéral ça ne enfin ça m'intéresse mais ça ne me concerne concerné nit ki day wax li ko li ko concerné <laughs> waaye loolu <laughs> Abdoulaye nee naa ko yow sax doo libéral far attention programme mu PDS 1974 ba muy ba mu koy formé le programme fondamental du parti démocratique sénégalais c'est socialisme travailliste bu ngeen ko xamut yéen jeunes yi ma wax leen ko bon mais maintenant Senghor a ko ne non yow man maay socialiste yow doo doon yow doo socialiste bañu ñu xuloo ko mais comme Senghor a doon président de la république ah mu damm loxo Abdoulaye Wade Senghor dem international socialiste Wade est très pragmatique dem international libéral gars yi fat ko mu ne leen liberal la <laughs> nii la demee de demewul neen donc euh, bon mais nag man sama socialisme bokkut ak socialisme gars yi ah bokkut fooy tëjee waaw gërëm leen yaa Moussa ak euh, sa technicien yi di gërëm aussi ñi ñu doon déglu man defe naa ne daal euh, daal ay jaay daqaar maanaam réew mi nit ñi sonn nañu mais yàlla du ñëw di ko lijjantil boppam ndax li war ci nun pour nu man ko lijjanti def na ko ci nun ba pare jeex na suñ doon jàmbat fii junni at ak ñaxtu ci naan attaaya mu seetaan nu junniy at <laughs> inna allaha la yuxayyiru ma bi xawmi xatta yuxayyiru ma bi anfusihim mu ngoog jeex na kon nanu sol sunu dàll yi la jóg te xam fu ñuy dugg te xam fu ñuy dugg maa ngi lay gërëm di la sant. ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal suma technicien yi ma àndal seet naa Alioune ak Abdoulaye Seck ak internet Sénégal yëpp di leen jox dig daje ci yeneen jotaay ak. ñeneen ci doomi réew mi ñu waxtaanee tolluwaay jamono jaa ngeen jëf wasalaam.